ndaw ndaje bi ministère de la madame le ministre moo ko woote woon donc euh, woo partenaires yi ñi nga xam ne ñoo yëngu ci secteur de la microfinance depuis longtemps te ñu constaté que ne am na un peu euh, benn euh, baisse en terme de d' intervention depuis quelques années bon madame le ministre nee na nag il faut ñu woo leen pour ñu waxtaan ak ñoom xool comment nu ñuy fexe ba seen intervention gën a mun a yokk ci secteur bi mais également ñu gën a coordonner leurs activités parce que am na ñuy intervenir sax mais intervention bi dañ ko war a gën a coordonner voilà donc dañ bëgg yokk intervention yi maanaam yokk ressources yi nga xam ne moom leen def secteur bi ça c'est le premier point le deuxième point c'est de de tell sort que les activités les interventions qui sont en train de mener ñu mën ko coordonner de manière beaucoup plus efficace voilà soqali microfinance waaw loolu moom vraiment Bayer dañ ci sant leen ci gërëm parce que yàgg nañ ci mais at yi ñu génn dafa jàpp dañ jàpp ne dafa wàññeeku moo tax ñu ñu woo leen ne leen ñëw leen ñu xoolaat nu ñuy def ba fexe ba li nga xam ne mooy seen intervention na ngeen ko gën a mun a yokkee ci secteur de la microfinance mais également nu ñuy def ba intervention yi gën a efficace donc loolu mooy solo ndaje aujourd'hui non man jàpp ma ne politisation mi euh, financement dafa am jàpp ñu loolu lu ñu jàpp mooy euh, microfinance euh, mi ngi liggéey di joxe ay services financier mais ce qui est clair mooy dafa am ay catégories de population yoo xam ne maanaam jeunes yi jigéen ñi parfois ils ont des dañu am jafe-jafe pour am lu ñuy wax financement alors généralement lañ leen di laaj ay garantie dañ leen di laaj ay taux d'intérêt yu cher et cetera donc dañ leen di laaj yoo xam ne des fois duñ ko am donc est-ce que état bi dafay toog di seetaan ñu bañ a dimbale leen pour ñu jox am crédit loolu état munu ko def donc il faut que état bi mettre en place des mécanismes pour fexe ba ñooñu nga xam ne secteur bancaire mënu leen jox lu ñu bëgg secteur de la microfinance mënu leen jox lu ñu bëgg ñu fexe ba état bi ñooñu ñu mun leen tirer maanaam def ay intervention direct ci population yi ñu mun leen tirer ñu mun a am des possibilités d'accéder au crédit pour mun a développer ay activités génératrices de revenus après nag suñu paree ñu dellu ci secteur de la microfinance continuer ak moom. donc noonu lañ gisee bon fu mu ne nii euh, lu ñu mën a wax mooy euh, l'aide sectorielle bi ñu ngi ko tëgg sur deux mille vingt et un deux mille vingt cinq. alors budget bi mi ngi toll ci cent douze milliards un peu plus mais ce qu'il faut dire am na projet déjà yu commencé il y a beaucoup d'activités yoo xam ne ñu ngi en cours. donc il y déjà le promise le programme sur la microfinance islamique boo xam ne waa banque islamique de développement ñoo ko financé avec l'État du Sénégal il y a le programme Plasipri également boo xam ne c'est le gouvernement italien moo ko financé boole ko ak euh, les ressources de l'État du Sénégal donc projet yi ñu ngi ñu ngi dox ci l'aide pour sectorielle mais dañoo bëggoon ñu gën a yokk ñu gën a yokk dégg nga maam activités yi nga xam ne moom leen war a dérouler ci secteur bi te boo xoolee at yi à part ces deux grands projets là boo xoolee intervention yi dox demeetul noonu donc puisque demeetul noonu dañuy fexe nag ba nga xam ne intervention yi des bailleurs ñu gën a apporter des ressources nga xam ne dañ gën a mën a contribuer pour le financement de la du plan d'action de la LPS deuxièmement ñu fexe également ba financement yooyu ñu koy ñu koy jot wala ressources yooyu ñuy jot ci bailleurs yi ñu mun a am une coordination boo xam ne dina tax mu gën a yemb mu gën a efficace et puis mu dem directement vers les